sa xidmatul xadim li nga xamante ne mooy yore wàllu mbale bitib jumaa ji ñi ko def def naa ni guddi ak ba gu jot tey nag ñu mel ni dañoo amoon liggéey bu mag buñ doon def réception ay pëllu mbalit yoo xam ne moom mooy wër jumaa ji waaye nag dañuy bàyyi jëriñ sëñ Modou mu wax mbokki taalibe yi nekk ci at mi yëpp liggéey bi nu mu wunn ak maanaam euh, nuñ koy taxawoo incha allah sëñ Modou waa at mi ñu lay déglu bisimilah rahmaani rahim di la nuyu di nuyu mbokk internet yëpp rawatina si site bi ngeen nekk di am mbégte bu baax di gën a jaajëfal suñu sang ba Cheikhul Khadim ci euh, ni nga ko waxee ci xew-xew bu am solo bii nga xam ne mooy liggéey bii ñu jàkkaarlool. muy liggéey boo xam ne ay ndaw ñoo ko taxawee ñu tudd leen daayira Xidmatul Xadim ñoo jaar ci yu bari baag si fii mooy li ñuy jàkkaar lool ay pôles mbalit la yoo xam ne si ne dañu inox lañ ko defee rek liggéey boo xam ne néewaa nañu gis ko ci ay mbedd waaye loolu lépp da ngay xam ne si Tuubaa moom dara jomb ko loolu nag moo indi liggéey bi fii jublu gi it mooy liggéeyale ko Cheikhul Khadim te jëmam ji rek tax loolu nag moo taxoon ñu ci bis bi ci bis bu am solo ci ñun wax dëgg yàlla ndax tawfeex dimbali ji ñu ñun suñ Tuubaa dimbale moo wax si nii moo ko fi juróom ak suñu ñaar dërëm ba mu ak si fii loolu nag kon ñu ji sàll loxo mboolem murid bi yaakaar suñ Tuubaa te bëgg liggéeyee suñ Tuubaa mu mën cee jaar ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa kon loolu moo doon émission tay bi moo doon bésu tay bi moo waraloon daje bi waaw sëñ Mor liggéey bi nu muy demee liggéey bi na lay demee dëgg-dëgg waa liggéey bi ni muy demee mooy guddi alxames bu nekk li naan guddi ajuma moom na ni daje fii tàmbalee vingt deux heures di ko bale mbooleem pava ji wër jumaa ji mbooleem suuf si ak mbalit ak lépp loo xam ne si ne luy nuru luy taq la def def lépp yóbbu ko ca euh, béréb mbali yi nga xam ne li suñu jublu ak suñu bëgg daal mooy képp koo xam ne si ni yaa ngi doxati ci li wër jumaa ji doo fi gis suuf sax ba gis mbalit kon guddi alxames bu nekk lay am bu tàmbalee vingt deux ba fajar jot lool moo doon liggéey bi maa mbooloo mi takku na wala waaw mbooloo moom incha moom wax dëgg yàlla macha allah macha allah waaw ndax ci njëlbeen moom néewoon na lool hmm. mën na ne ci ñetti nii la tàmbale woon ñeent hmm. waaye instant bi nii mën na ne àgg na ci sept cent membres yoo xam ne si macha allah ñu ngi ci biir dëkk bi yii ñu ngi ci biir région bi am na sax ci biir diaspora bi macha allah lépp nag leen naan liggéey Sëñ Tuubaa ginnaaw hmm. tànk hmm. liggéey bi firndeel na waaw loolu daal mooy li nga xam ne si loolu liggéey bi kon fii ñu toll nii ban message ngay euh, euh, lancé àdduna bépp ci li jëm ci kanam pour ñu mën koo déglu ak lu liggéey bi yittoo fi mu nekk nii li jëm ci kanam mooy li ma mujj wax léegi ku wax ku wax mbalit ku wax poubelle wax mbalit hmm. te kon wax mbalit wax déplacement hmm. kon auto buy jël mbalit lu wara am la il nga hmm. xam yu di man di circuler 24 heures sur 24 nga xam ne jumaa ku ci doxati set rek ngay gis waaye da dul gis kon loolu mooy message bi nga xam bëgg nañ def na bépp dégg ko murid suñ jubaa yi dégg ko man de jaayante ak suñ jubaa ba lépp loo xam ne si mbalit def na fi rek auto bi jël daayira bi ci ay moyen lay dox lay dox kon ku ci jàpp day mel ne yaa ngi liggéey si Touba waaw ku leen bëggoon jot wax ma benn numéro boo xamante ne ñëpp dañ koy dégg incha allah. 78 136. 43 43. incha allah 78 136. 43 43. incha allah loolu mooy numéro bi nga xam ne si ne boo ñu wootee nga jot allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant nañu baax solo loolu.